amaa su fekkee day indi lënt nag kooku nañu yem ci mafoor bu njëkk ma dong mooy mooy mooy wuutu wa bi ittifaaqin qad yanuubu saani min baabi kasa baabu kasa nee naa la bépp feel bu nasab yaari mafool te duñu woon mubtada xabar moo xam aataytu la wala kasawtu wala wahabtu aywa mu ni nag fi baabi zanna wa ara al man ushtahar wala ara man an ida al qasdu zahar mu ne wa ara wal man u tere mooy tere inaabatu mafooli saani dégg tere gu ñu tere ni mafoolu ñaareel bu mu nekk naib fii baabi zanna wa ara ndax ba nu ko daganalee ci buntu kasa ak yooyu mooy ya nga xam ne du woon du woon mubtada xabar ci cosaan buntu zanna ak ara ak ak yooyu nag ak buntu kaana loolu mafoolu mubtada xabar la ñu woon ci cosaan moo tax mu ni wa wal man u tere remplacer mafoolu ñaareel muy naayib loolu tere gi ko ñu nax wi ñu tere istahara siiw na bay na nax wi siiw na leel ñu tere ko ni mafoolu ñaareel ci buntu zanna ak buntu ara bi nga xam ne xabar la woon ci cosaan kenn du ko def naayib bu njëkk ba rek ngay def ibnu malik nag andi njàmbaaram mazhabu boppam foofu lu mu néew a def ñetti yoon la ko def ci alfiya bi li mu rëy rëy da daan toxal waxu nax wi yoon yi ko jëkk waaye nag daal di walanteeru wax mazhabu boppam def na ko ñetti place benn baa ngi mu ni man nag wala ara duma gis ci loolu man an ak tere kat ngant luñ ko war gantu idal qasdu sukkee maanaam a zahara feeñ man dagan na fi man loolu la wax away jàmbaar la umu maay nee na moom jàmbaar da fi moom waaye nag benn bayta wala ara man an idal qasdu zahar nee na maanaa bi bu xasee feeñ manees na ko man nga ni man nga ni zunna zunna zaraabu maa an loolu mooy cosaan nga ni zunna assaraaba maa un du dëgg kooku lënt du ci ne moo tax mu ne man gisuma ca lu ñuy war tere waaye nag bu lënt amee nag ah ibnu malik génn na ca na ca ñëpp génn moo moom ida zahara al qasdu la wax de wa in lam yazhar al qasdu wajaba inabatu lawal nga ni zunna zeydun amran ñu xam ni zeyd la ñu gisoon teg ko amar bu ci bu fekkee looloo am nga dikk nag ni zunna zeydan amrun ah lant am ndax yow léegi da ngaa woote ni amran la ñu séenoon kat defe ni zeyda te du loolu nga bëgg loolu mooy kooku moom moom la ni su fekkee xasdu bi li nga jubloo wax leer na daal amul lu ñuy tere wa ma siwa naibi min ma ulliqa bi rafici nasbu lahu muxaqaqa boobu bayta des mu tëj bunt bi wa ma siwa naibi lu dul lu dul la remplacer fail ji fiil bi bi ñu ko defee binaaw lil majhul day toog naayib fail la war a am te fiil nag mafooru bihi mën na ci aju ñu def ko naayib xëy na waaye mën na fekk masdara nga ca woon aju ca mën na fekk zarbu zamaana nga ca woon aju ca mën na fekk jaar ak majuróora nga ca woon aju ca mën na fekk mafoolu mutlaqa nga ca woon aju ca yooyu yëpp am waaye yooyu yëpp nag bi ñu xas a wax ne daggan nañu def ko naayib ba def ko ca ye ca des yëpp seen atte mooy nasab lu tax li anna al faida waxidun wa kadalika naibuhu failu fi'l benn lay doon ah kon nag kon nag la la remplacer fayil at fayil la yorte kon na nekk benn aywa masalan nga ni daal daraba amrun zaydan fi daarihi yawmal jumuati darban sadida amran mafoolu bihi la fi daarihi zaraf la yawmal jumu jarak majrur yawmal jumuati zaraf la darban sadidan mafoolu mutlaq la yooyu yëpp aju ci léegi nga nga nga tarki binaaw fee nga rakab tarki ma rakabal feel ji maanaam tëgg ko li ma foon nga ni duri ba kon naay fayil lay soxla ñun la fayil benn la daan naay fayil kon benn lay doon nga ne duri ba zaydun yawmal jumaati fii daarihi darban sadidan yëpp nañ leen nasab wa ma siwa naa'ibi lu dul la remplacer fayil mimma ulliqa bi rafi ci lépp lu ñu aj ca feel ja rafee woon lu ca aju moo xam mafool bihi la woon wala jaara maj wala leneen kooku annas bu nasab muhaqqaq lahoo ñeel na loola kat muhaqqaqan muy lu ñu waral wal illatu li anna al faila wahidun wa kadalika naibuhu
amili soxla woog amil anil maamoli walis maamool liñ ci jublu mooy amil mooy fi'l tey fi'l ji waroon a nasab maf'ul am lu ko soxlaal ba talatul maamool ma li mu waroon a nasab pour maf'ul talatu ko ma ngi mel ni bu fekkee da nga ni zaydan darabtuhu daraba ji mooy amil ji nga xam ne damir ji moo ko soxlaal ba kenn mënatul ni moo nara ma nasab saydan mii jiitu bu dul woon damir ji rek muy muy muy saydan darabtu dañuy daal di xam ni moom darabtu dafa mujj waaye moo nasab sayd waaye nag su damir dikkee soxlaal darabtu ah talatul lee ko dara kon nag lii pexe ñu nattale beneen amil bu bokk ak bii laft wala maana boo xam ne moo koy nasab dégg nga moom la ni in mudmarut min saabiqin su fekkee damiru lisim ju jiitu saxala moo soxlaal fi filan feel anhu walis ko walis lisim ja damiru lisim la nu wax ni ki damiru hoojooju dellu ci saydan darabtuhu kon damir ji moo soxlaal fiil ji anhu walis saydan male bi nasbi lafzihi maana ci ci sababu soxlaal ko ba talu la nasab lafz ba ni ki zaydan lafzam boobu lu ñu nasabu la awil maxal wala walis di nasab maxal ba ci bu fekkoon da nga ne haada darabtuhu waxuma boo defee haada muy mubtada de soo ko nattalee ni darabtu haada moo doon cosaan kon maxallu haada boobu lisim ju ñu bi naa la barabu nangam lay ne waaye kenn dootu ne nasabu laf ba tey damir ji moo soxlaal darabtuhu ba munu la nasab maxallu haada kenn du wax lafzu wande moom binaal te lu ñu binaal liraabul maxal lii lay am moo tax mu ni saxalahu anhu bi nasbi lafzihi aw bi nasbi maxallihi ndem lu ñu binaal bon luy pexe jawaabu in bu loolu xewee mu ni fa saabiqa bu jiitu ba in sibhu nasab ko loolu sax faf na doon misaalu lin doon wax faf nag faf atte bi bi mu ko ndee faf na làmboo misaal seetal in sibi saabiqa nga ni fa saabiqa in sibhu nasab ko li fiilin ci fiil mu udmira joo xam dañu ko xadaf fiil buñ ci waxee idmaar mooy xadaf rek xatman ci lu war ndax kenn du boole aji firi ak la mu doon firi insib hu firi na insib ju jawaroon a dawlu kon nañu dindi jooja nag xatman muwaafiqun juy dëppoo la ñu fa xadaf na doon nañ ko xadaf xatman te it na doon bu dëppoog li ma qad uxira ñeel la ñu feeñal dégg nga fa fa kon insib hu nga feeñal kon insibi saabiqa insib hu dégg nga lima qad udmira wa nas léegi nag ay anam dana ca ci tarkib bu mel noonu léeg-léeg dañ ko war a nasab rek moom la jëkk a wax du dagana rafa muy mubtada jumla ji de jumla yi maanaam mën na dem ba zaydun darabtuhu loolu bu dee cosaan xëy na loolu moo gën ndax amul benn taqdir waaye loolu mën nga ni zaydan darabtuhu ay tangitam nasab gi dana war sax ba doo ko mën rafaa muy mubtad ay sang nasab gi day terewu rafaa mubtad dong ngay mën a am dégg nga ay tàng dana dasam ñaar dana yaar yëpp dagan waaye rafaa gee gën rafet nag léeg-léeg itam nasab ga gën rafet te yëpp dagan bu dara xewul nga ni zaydan darabtuhu dagan na waaye nag zeydun darabtuhu dong moo gën a rafet foofu ndaxte aajowul taqdir dara te soo nee day dan darabtuhu foog nga nasab darabtu zeydan darabtu wa nas bu nasab gi xatmun lu war la nga xam ne rafaaga du dagan in talaa bu toppee assaabiqu lisim joojee jiitu di ki zayd maa amil boo xam ne yaxtassu day jagoo bil fiili fiil rek lay àndal ni ki baatu in soo nee in zaydan darabtuhu kooku nasab gi rek a war ndax soo nee soo ko rafaa in du dugg ci mubtada xabar du dëgg in wa xaysuma itam xaysuma itam da nga naan xaysuma darabtu saydan wa in tala saabiqu ma bil ibtidaa yaxtasu fa raf altazimhu abada geneen anam dama la waxoon ni rafaa gi mooy war kenn du daga na nasab wa in tala su toppee asaabiqu lisim jooju dawlu li ki sayd maa amil boo xam ne yaxtasu day jagu bil ibtidaa yi ci mubtada rek lay war a dugg ni ki idaal fu jaaiya ak yooyu kon kat fa raf a rafaa ga iltasimhu taqoo ko kooko misaalum listixaal la di kon faltasimi rafa kon na nga taqoo rafaa ga abadan faw nasab ga doo dootu dagan ndaxte li lisim ji daw lu topp ci moom mubtada rek lay àndal ni ki idal fu jaaiya soo ne xarajtu fa ida zaydun yadribuhu amrun ngay wax waaye dooni fa ida zaydan yadribuhu ndax ida ci mubtada rek lay topp moom la ni wa in tala saabiqu ni ki zaydan maa adaatu boo xam ne yaxtassu bil ibtidaay kon day far faltasimi rafa ndax kooku mubtada nga koy mën def kada naka noonu ba tey ci war a rafa idal fi'lu su fekkee fi'l ji talaa dafa topp maa adaat bi nga xam ne lam yarid du dikk maa qablu la ko jëkk maamolan doon maamool li ma wujida ñeel lu ñuy fekk baadu ci gannaawam ni ni ki tey adaatul istifaam ak maa naafiya kooku lu xasa topp ci moom dootu mën a doon maamulu la lay dikk gannaawam dégg nga ni ki maa naafiya wala adaatul istifham boo ne zaydun hal raaytahu du dëgg kooku kon hal adaatul istifham dafa yow sadru kalaam dootoo man ni zaydan hal raaytahu dégg nga wala muy maa naafiya ni ki al ilmu maa taraktuhu dégg nga wala adaatu chart xaalidun in akramaka fa akrimhu doo man ni xaalidan in akramaka li anna ma laa yasluxu an yacmala fi ma qablahu laa yasluxu an yufassira aamilan gannaaw in la topp ci moom dootu mën a dégg nga do do mënul dootu mën a jëf ci la ko jëkk lu mënul a jëf fi barab doo fa mën a firi amil juju fa xadaf nga ni jee ko firi ndax firi amil maanaam amal la rek moom la ni kaza idal fi'lu su fekkee fi'l ja talaa dafa fi'l ji waroon a nasab ji waroon a firi ji ñu xadaf talaa dafa topp maa loo xam ne lam yarit du ñëw maa qablu lu ko jiitu maamolan doon a mën a doon maamool li maa wujida baadu ñeel la ñuy fekk ci gannaaw fi'l ja waaw kon nag gannaaw mënu faa jëf du fa mën a firi amil rafa moo fay war wax na fi nga xam ni wujjoo bu nas bi la wax teg ca wujjoo bu rafi léegi nag mu des ixtiyaaru ahadihima ñaari ñeenti paar la war a nasab faw war a rafa faw dagan seenug dagante rafa ga gën wala seenug dagante nasab ga gën yaar yu jëkk yu jeexal na ko des na yaar yu mujj dañ ci dañoo waxoon ñeenti anam jumla ji nga xam ne ci la listixaal mën a wére léeg-léeg dana am foo xam ni nasab ko ci listixaal rekk mooy baax su toppee ci loo xam ni fi'l dong maa yaxtassu bil fi'li ka in wa xaytuma in ci jumlay fi'l lay dugg du dugg ci jumlay lisim kon soo ne in amran raaytahu fa akrimhu kon il faut nasabal in raayta amran dong nga mën a naq taqdir dana am foo xam ne wujoobu raf'i lay doon boo xamee ni dafa topp ci maa yaxtassu bil ibtidaai ni ki idal fu jaaiya du dëgg xarajtu fa ida zaydun yadribuhu amrun kooku kenn mënu ko nasab ndax idal fu jaayee mubta dong dong nga ci mën a topp kon bu ci tofal mafoon wujubu nasbee ngee wujubu rafee ngi jawaazu nas bi nag ma a rujxaanihi day am dégg nga jawaazu nas bi ma a kawnihi marjuxan it day am léegi nasab gi dana dagan te moo gën rafet waaye bu la neexoon rafaa dana am foo xam ne waaw rafaa geet dana dagan te moo gën a rafet waaye bu la neexoon it nasab kon yenti xaaj la yëpp la jàngale na moom la ne ma léegi ma ngi wax fi nga xam ne yaar yëpp dagan na waaye nasab gee gën waxtiira nasbun qabla fi'lin di talab tànn nañu nasab moo gën rafaa ko muy mubtad qabla fi'lin bu fekkee dafa jiitu fi'l di talabin joo xam ne boroomuk sàkku la ni ki fi'lul amri wala nahy du dëgg kooku nasab ga moo gën du dëgg kon zaydan idribhu moo gën a rafet bu amaa nga rafaa ko de dagan na waaye wax dëgg rafetul soo ne zaydun idribhu kon def nga ko mubtad te l- idribhu jumla ji xabar la ah waay waay wal aslu fil xabari an yakuuna xabaran laa talaban du dëgg lu doon ci jékki xabar muy xabar te bañ dib talab idrib talab la ah ya darabahu xabar la kon boobu nasab gi moo gën du dëgg rafaa gi moo gën maanaa maanaam nasab gi moo gën nga ni zaydan idribhu moo gën zaydun idribhu du dëgg ah amaa bu doon feel kay feel xabar la nga ni zaydan darabtuhu waaye bu dee idrib ah kooku nasab gi mooy gën rafet daal waaw kay wa baadama ak beneen adaatu boo xam ne ilaa uhul fi'la sësale koog feel xalaba moo ëpp sësaleem ak lisim du dëgg loo xam ni sësaleeg lu ci ne mën na am hmm? waaye nag sësaleem ak feel moo ëpp kookaat day nasab lañu fa tànni ki hamsak listifham qaala taala abasharan minna waaxidan nattabiuhu ay anattabiu basharan minna nattabiuhu xaji nga nii ko nasabe moo gënoon a rafet nga ne abasharun minna ndax hamsak listifham kat dana dugg ci lisim dana dugg ci feel da nga ni a ara ayta zaydan am amran man nga ni azaydun qaama am amrun xanaa ji nga ni mu duggee ci mubtada waaye nag la ëpp méngale ko fee la ëpp moo tax kon nasab gi moo gën rafet wa baadama gannaaw amil joo xam ne ilaa uhul fi'la sësale koog feel xalaba moo ëpp sësale koog lisim ni ki xam sag listifaam kon su boobaa tam ci buntu listixaal bi yaar yëpp dagan na fa waaye nasab gee gën ndax soo ko nasabee feel nga fay taqdir wa baada aatifin bila faslin ala mafuuli fiilin mustaqirrin awwala dana ñu tànn nasab feneen bu fekkee dafa dikk baada aatifin ci gannaaw xarafu ataf bila faslin ci amul lu taqlee digganteem ak feel ji amma jaaru fa dara jaaru fa nga ataf ko foo ko ataf ala maamooli fiilin ci maamoolu feel mustaqirrin mu di aji sax awalan ca njëlbeen ni ki nga ni zaydun qaama lu dëgg maanaam boo nee qaama zaydun rek qaama zaydun nga daal di ca ataf ni wa amran akramtuhu foofu nag nasab gi gën wa zaydan akramtuhu ndax qaama zaydun jumlay lisim la wa amran akramtuhu jumlay lisim ndax ndax yaa ngi taqdir qaama zaydun wa akramtu amran munaasaba gi mooy jumlay feel nga ataf ci jumlay feel dafa mel da nga ne qaama zaydun wa akramtu amran waaye nag wa wa amrun akramtuhu jumlay lisim xaalis la su ko defee dagan na de waaye nag ataf jumlay lisim ci jumlay feel su daganeet ataf jumlay feel ci jumlay feel la ko gën rafet moo tax mu ni waxtiira nasbu baada aatifin ci gannaaw arafu ataf bila faslin ci lu dul tàqalee mani la bañ koo tàqaleeg ama waaw mafhumu bila faslin waaw su fa fasal jaaroon nag yaa ataf jumla ji ci jumla jee waaye fasal jaar na fa su boobaa kat nasab gi dootu gën rafaa ga rek kay baax tey boo noon xaama zaydun wa amma amrun fa akramtu dégg nga li ma wax amma dafa jaar diggante xarafu ataf yi ak li mu waroon a ataf soo noon xaama zaydun wa amran akramtuhu mooy gën rafet waaye soo faq taqalee waawi ak akram nga ni wa amma xaama zaydun wa amma amrun loolu mooy mafhumu bila faslin mustaqirin bu dee aji sax awalan ca njaal been wa in tala léegi dana am foo xam ni ñoo yem képp lu la ci neex def moom la ni wa in tala bu toppee al maatuufu li ñu ataf fi'lan fi'l muxbaran ju ñu xabaare bihi ci moom an ismin mu jóge ci isim xam nga dañu laa misaloon jumlaay fi'l ni ki qaama zaydun wa akran am ñu ne nasab géegan mën na am fu ñu yem képp mooy su fekkee jumla ji day borom ñaari boor mooy wa in tala bu toppee almaatuufu ni ki amran moomu fi'lan fi'l muxbaran ju ñu xabaare bihi ci moom an ismin da nga noon zaydun qaama ju qaama fi'l juju mooy xabaru mubtada mi zaydun léegi kon nga daldi ni zaydun qaama wa amran akramtuhu soo ko nasabee dana rafet mu ndax munaasabak qaama moom jumlay fi'l la fàtteel zaydun mubtada ma ndaxte jum jum jumla jumal mutadaaxila moo am yow lee soo ne zeydun qaama na nga xam ni jumla ju dugg ci jumla la ndax mu jumlay lisim ji mooy zeydun qaama waaye qaama ak damiram jumla la ju ñu def jumlay mubtada loolu la ñuy wax jumal mutadaaxila jumla dugg ci soo biroon qaama rek mu nëbb huwa jumla la nga jël ko moo damiram ji mu nëbb muy mu nekk barabu rafaa di xabaru zeydun mi ko dawlu kooku muy jumla yu duggante comme jumla zaatu wajhayni la borom ñaari boor la boo nee xa zaydun qaama wa amran akramtuhu rafet na ndax munaasabak qaama jumlay fi'l la wa amran ju wa amran ji jumlay fi'l la ndax dañoo xal wa akramtu amran soo ko rafaatee rafet na ndax bopp jumla ja boo seetee zaydun qaama jumlay lisim la wa amrun akramtuhu kon da nga koo ataf ci jumla zaata wajhayni buy borom ñaari anam njëlbeen gi jumla lisim la waaye mujj gi jublay feel waaw looloo tax kon yëpp rafet wa in talal maatuufu te mooy wa amran jooju su toppee fi'lan fi'l joo xam ne muxbaran bihi dañ koo xabare an ismin ci mubtada mu dawlu kon faati fan atafal sa amran bi mu xayyaran ngay ku ñu tan soo boo nasab mu rafet ngir bu nu xoolee xabar ji boo rafaat mu rafet ngir bu nu xoolee njëlbeenu jumla jële di mubtada dégg nga wa rafu fi gayri alladi marra rajax ma ni la raf rafaa nag rajaxa moo lëng fi gayri alladi marra ci lu dul li passé mooy bi ma la jëkk a wax ni la bu dara xewul ak yooyu dégg nga li dul li passé mooy dara xewul da ngaa tëb tëb ni zeydun alladi marra mooy lan li passé waxoon nanu su fekkee am li ngay ataf dafa topp ci ma fiil ji dafa topp ci dafa topp ci maa yaxtassu bil fiili mun la woon kooku nasab gaawar su dee maa yaxtassu bi bi libtidaai kooku rafaa gaawar bu dara xewul ah yëpp dagan na waaye wax dëgg rafaa géey gën ndax li anna maa laa taqdira fiihi xayrun mimma fiihi taqdir teew soo ne zaydan darabtuhu mu dagan waaye foog nga nattale feel joofuy xasaf ñu ne dañu foo xasaf darabtu darabtu ji firi ko da doon darabtu zaydan darabtuhu seetal soo ne zaydun darabtuhu googu taqdir du fi am mubtada xabaram rek la wa maa laa taqdira xayrun mimma fihi taqdir kon bu dara xewul yépp a dagan waaye nag rafaa ga moo gën moom la ne war rafu rajaxa moo la nga nasab fi xayri ladi mara ci lu bokkut ak yi passé yi passé mooy foo xam ne nasab ga war la fa ak loo xam ne rafa rafaa ga dafa fay war ak boo xam ne dañ faan tànn lii wala ñu tànn fa la waaye nag fa maa ubiha lu ñu daganal ci anam yi if al defal wa daa bàyyil maalam yu baax la ñu daganalul te biralal naa la li ñu dagan ak li daganul dégg nga ba tey nag muy wax leneen wa faslu mashghulin bi xarfi jarri aw bi idaafatin ka waslin yajri sababi bii def nekk listixaal damir ba ca nekk di dellu ci li jiitu woon mën na jokk ca feel ja mën na jokk ci sababi yoom itam dégg nga fasale diggante mashxuul bi ak mashxuul anhum moom la ni faslu mashxuulin bi xarfi jar digganteem ak mashxuul bi mooy li ñu soxlaal fiil yi ñu soxlaal ba talu la nasab lu ko jiitu nee na ñu tàqalee digganteem ak loolu xarafu jar nee na ka yaj yajri day ka waslin du dëgg maanaa man nga ni te aw bi idaafatin wala ci laafi sax maanaa ni nga ni nga mën a ni zaydan darabtuhu man nga ni zaydan darabtu xulaamahu du dëgg damir ji ci xulaamahu kat moo moo soxlaal darabtu du dëgg te fasale nga digganteem ak mudaaf mi wala nga ni zaydan marartu bihi ah kon ma marartu dañu naan moo damir ji moo ko soxlaal ba mënula firi fële te bu fa doon fireet laf su marartu firiwu ko waaye maanaam lay firi ndax kon dañ koy nattale jaawastu zaydan marartu bihi ndax marartu bihi ak jaawastu ñoo bokk maanaa kon nag mën nga ni zaydan marartu bihi mu nekk listixaal mel na na maratoo bëggoon a nasab ndax jaawastu mi nasab moro mbokk ma ñoo bokk maana waaye xaraf bi soxlaal na ko ba talu ko te it jaar ak ma majruur dox na diggante masxool bi ak shaaxil bi surtout bi jooju darab tuxoo dara doxul diggante shaaxil ak masxool fiil jeey masxool damir ji mooy shaaxil waaye marartu bihi dégg nga su ko def kooku moom loolu moo ci am dégg nga loolu la ni wa faslu masxoolin tàqalee fi'il ja ñuy soxlaal ba talu la nasab lisim ja dawlu nga tàqalee kook la ko soxlaal bi xarfi jarin ci xaraf ni ki saydan maratu bi aw bi idaafatin nga wala nga jaarale fe mu daaf rek la ci jublu ni ki saydun saydan darabtu xulaamahu kooku yajri dana daw ci daganu anam yooyu ko waslin comme jog mu ngi mel na damir ji ca la jóg woon du ko yàq mu des nag maanaam boo noonu saydan darabtuhu xam nanu li ko daganal mooy darabtu saydan da nga koo dóoroon firi dindi jooju firi kii waaw darabtu xulaama zeydin nag lan la joteeg zeyd hein arab dafay jëfandikoo léeg-léeg sàmmoonteeg maanaam comme ni muy sàmmoonteeg lafu maanaam mi mooy ni darbu xulaami ahadin ihanatun la lahu su xale bi nit doomu nit nga dikk rek di ko dóor fi kanamu baayam ak doyadal baayam la ah kon nag darabtu zaydan dafa mel ni dar zaydan darabtu xulaamahu wala ibnahu dafa mel nga dafa mel da nga ni ahantu zaydan te moo di darabtu xulaamahu ni ka maratu firee jaawastu noonu la darabtu firee ahantu li anna darba wala xulaami insaanin ihanatun la lahu du def kon xam nga ni foofu maanaa bi lañu bëgg ba tey mu ne wa sawwi fi dalbaabi wasfan za amal bil fiili in lam yaku maaniun xasal wa sawwi yamaleel fil baabi ci buntu listixaal bi wasfan sifa za amalin jooxaani boroom jëf la mooy bu fekkee dafa nekk lil xaali wala listiqbaali du dëgg sifa bu nekkee lil xaal léegi nga mën ni zaalibun zaydun daaribun amran laana wala xadan kooku sifa la soo xam ne daa amal boroom jëf la mooy bu nekkee lil xaali wala listiqbaal dégg nga na nga ko yemaleeg feel nag ci dagana kii du dëgg mën nga ni mën nga ko yemaleeg feel ci dagan listixaal ak sifa si man nga ni zaydan daaribuhoo ana daaribuhoo laana dégg nga aywa waaye nag na fekk indam yakku ndéem nekkul maa ne un aji tere xasala joj am na ndax sifa si su fekkee ni dafa dañ ko taara woon mu yor muy silas al sifa bu demee ci al bu nu waxee taaraat fekk na alja ismu mawsul la wa sifatun sifatun sarihatun sifat silatu al su fekk na alja ci boppam mooy lisim ja mooy mooy maarifa ba sifa si mooy silaam waaye rek teewul nu ne muhalla bi àlla lu yor àlla su ko defee nag ibnu malik am na fu mu ni ci amalu wasfi ne wa in yakun silatu al fa fi fa fil mudi wa gayrihi imaaluhu qadr tudi nee na jëfi feel su fekkee sifa dafa yor maanaam xaal wala listiqbaal te nekkul silas al mën na jëf amma bu dee silas al nag fa fil mudi wa gayrihi imaaluhu qadr tuddi waaye du tax mu mën a def listixaar maani dafa am lu tax soo ne zaydan ana addaaribuhu doo ko mën a wax ndaxte ismu mawsul al ji alif ak laam gi laa yaamalu ma baadahu fi ma qabla li topp ci moom ci gannaaw du mën a arrière jëf ca ngi te wama laa yaamalu fi mahallin laa yufassiru fihi an